tontu bu foroxa forox la jox ñi nga xamante ni ñooy famille Balla Gaye numéro de moom euh, Boy Niang doomu Pikine bi nekk ci écurie Dégaule Boy Niang nag ginnaaw ba mu ñàkkee li nga xamante ni euh, mooy euh, combat diggante moom ak Tapha par décision arbitrale ba mu amee ay li nga xamante ni mooy avertissement yu mat cinq moom booy Niang dafa ñàkkoon li nga xamante ni mooy combat am diggante moom ak ki nga xamante ni mooy Tapha Tine sax moo tax naam sax contrat bu amoon moom ak Balla Gaye numéro 2 ay jegeñaale ak ay mbokk Balla Gaye numéro 2 ne Boy bii nii ñu gis mu bërik Tapha Tine amagul niveau ngir bërik ki nga xamante ni mooy Balla Gaye numéro 2 jamono ji nga xamante ni moo nekk mbër bu gën a naqaree bëril si làmb ji moom nag ginnaaw euh, ba mu jàmmaarloo kii di euh, Boy 52 bu Mbour le premier janvier bii ñu génn rek atum 2022 moom Balla Gaye numéro 2 kenn xàmmeetu ko loolee sax moo tax ki nga xamante ni mooy Boy Niang génn rek naan ñi nga xamante ni ñooy euh, famille Balla Gaye numéro 2 wala sax ay jegeñaaleem wala ay mbokkam dañoo war a noppi xam ni li nga xamante ni mooy làmb kenn xamul nu mu demee moom Boy Niang numéro 2 nee na kii di Balla Gaye numéro 2 yàlla rek moo wane foofu carrément ni dañoo run picc seen làmmiñ nee na yàlla rek moo wane boppam moom Boy Niang numéro 2 mu ngi dànkaafu ñi nga xamante ni ñooy famille wala jegeñaale euh, bu Balla Gaye numéro 2 naan leen bu ñu yaakaaree ni moom euh, Boy Niang dafay toog xaar ki nga xamante ni mooy euh, Balla Gaye ñu ngi nax seen bopp nee nañ nag du nangu benn yoon ab mbër wala sax ab ay jegeñaale mbër di ko diriger moom nag nee na kenn du ko diriger moom Boy Niang numéro 2 mooy wax nee na nag li nga xamante ni mooy moom ak Balla Gaye numéro 2 contrat rek moo leen bu ñu waree bëri dañuy bëri waaye bu fekkee ni nag ñoom dañuy toog di xaar li nga xamante ni mooy Balla Gaye numéro 2 naan ko fi ki ngay taxawee wala ki ngay bëril soo ko bërik euh, mooy Balla Gaye ñoom nag duñu wax dara ci sama carrière moom Boy a noppi ci li nga xamante ni mooy combat bi Gaston Production moo a wax ginnaaw ba mu tëggee suñu combat ñu ñaar kon rek mu doon ñaari yoo xamante ni jamono ji dañoo war a bëri lamb rek moo ko moom Boy Niang numéro 2 mooy wax na nag li nga xamante ni mooy Balla Gaye ak képp ku mu mënti doon du ko wax nan lay taxawee du ko wax kan la war a bëril te du ko wax aussi nan la war a def ci carrière yaram moom Boy Niang numéro 2 di joxoñ baaraamu tuuma ñi nga xamante ni ñooy jege ñaale Balla Gaye et numéro 2 naan leen dañoo war a noppi noppi si samay carrière moom nag nee na carrière am kenn du ko wax kan la war a bëreel soog a bëri ki nga xamante ni mooy Balla Gaye numéro 2 nee na moom ak Balla Gaye dañoo war a bëri bu jeexee rek jeex na